man ARMP man dama leen di sant ñoom parce que gis-gis bi ma gis ci liggéey bi ñuy def mooy defuñu ko pour xas nit defuñu ko it pour yàqal nit dañu koy def pour accompagner nit ñi ñu gën a efficace ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu def moo gën a am transparence waaye lii nga xamante tudd nañ ko ci wàllu ARMP damay fàttali rek ne gis-gis bi moo xaw a wuute parce que li ñu gis tey ci wàllu demande renseignement de prix fi nga xamante ne mooy ministère des sports am na kuréel goo xamante ne moom mooy joxe agrément yi moom mooy am base de données buy joxe demande renseignement de prix dafay convoqué juróom ci ñooñu wala lu ko ëpp bu leen convoqué day xool ka nga xamante ne moo gën a méngook yoon kooku lañu ñu koy kii ñu ko jox nag muy moi service dafa nekk société boo xamante ne du kenkayri lay def comme ni ñu ko waxee tey société yooyu ñuy tijji yëpp dañuy am branche yu bari dinañu def li dinañu def hôtellerie mën nañu def consultance mën nañu def quincaillerie mën nañu def leneen ak leneen. multi service comme non la tuddu parce que dañ ne moo multi service xam moo laa multi service pour vous dire que famuy xewé sax du lo xamante ministre bi koy coacher directement parce que dafa am ay service parce que li ñuy def moy une gestion axée sur les résultats donc day am responsabilité ñi nga xamante ñoy yoré kurel go bi ñu ko déggee xaylu bi ñu jotee premier rapport bi muy rapport préliminaire bi muy rapport bu njëkk bi tontu nañu li ñu tontu nag xam naa moom la ñu jëlul en charge waaye li may xamal sénégalais yi mooy ñi ñu ko jox mën nañu parce que la ñi nga xamante moom la ñuy liggéey may na leen ñu organiser séminaire may na leen it ñu def quincaillerie donc loolu laa bëgg a wax sénégalais yi.